doo xullee xool ma xool ma tapet nga xool ma ci bët ragal nga eh, ma lay dàq ji nga a ma lay dàq sa biir di ma lekk maafe ba sama biir di daw waxal si micro bi sa waay ma nga ma def man la doomu Samsam Modou Yama doomu baax yaay bi li jëntiw ma la sax yow barki la tàncee ngi na Serigne Bamba jàppe nga xam ne mënoo bëre mënoo xeex gudduree jaaxaluñ ma la tàncee nga xam ne doo dërëm. ba bés ba incha doo dërëm ay lex rek nga ma ëppale. ba bés ba incha allah yéen ñaa ko ëpp doole. man maa eh, ay lex rek la ma ëpp. bañ dong la ma ëpp. ama wul bu sumee nga xam ne doo dërëm. yàlla baax na yow da nga ñaar rek moo tax. wóor na Serigne Ba xool ma xool xool ma xool sa bopp ana caméra yi fan lañ nekk caméra fan lañ nekk xool ma xool sa bopp nañ ma xool nañ ma xool xool sa bopp doo dërëm mala tànc yara nga xam ne doo tërë déggoo lu ma la wax nii doole laa am barki Serigne Bamba foo dal si man ma daan la wóor na Serigne da ngay xaar ma dal sa kaw daa fi bëre fop oh ndeysaan kuy njëga eh, eh, sëngi eh, kon yaa ngi may seetaan kon yaa ngi may bàyyi xel kon yaa ngi may bàyyi baax na ba bës def lu métti waaw yàlla baax na bëre naa la daan boo xeexee ma duma la billaay walaay dërëm sëngi waaw maintenant dañ na moo di nga ma yuuxoo ci de sax wala barki waaw moo yaa may mu xool ma waaw doo may mu xool ma nag loo ko soxoree mu xool ma ni. waaw waaw dëgg fa nga. ci Serigne Bamba li nga am ci laabu ji. wóor da jeew dara wóor na sax sa pii ko paago mbaa gi nii. waaw léegi léegi wala déggoo ma affaire yi da nga da ngay wax olof mbaa nga wax aram mbaa. non léegi si pii ko paago la lay wax. doomu pël baa ngi nii léegi sa pii ko paago. du ko leeralal barke Seydina Mohamed kii dama koy duma daan ko. kuy lañ eh, de. day nelaw rek bu subaa lay ko. léegi woote leen waaw woote leen woote leen moo wooteel moo wooteel. waaw waaw bilaay moo xoolal bi. man mi ñeme micro bi xam nga njëkk a woote ah. <laughs> maa waa Sam Sam 1 2 xam nga di woo waa tëli maam jaara tëli karo xam nga di woo waa LS Pro fi nga xam ne ñoom laay nekkal di moo di woo sama élèves yi may jàngal loo jàngale arab laay jàngale ok ñoom laay jàngale euh, adomo jami talamidi wal as euh, wal mudara wal asatis mm. askurkum jamian wa aqul lakum bi an taxduru fi hadi mm. al yawm xamsa wa ashrin fi shahri fabrail mm. insha allah sa adribu hada rajul wallahi ana aqwa min hada rajul sa adribuhu waa insha allah nadu allah an yatina aw an tuutina fawzan azizan wa sahlan jiddan insha allah moo di woo maa ngi woo ñëpp lii rek lañ maa ngi woon de kuy laax awaay tàccu waay laax na arab waay ahlan wa sahlan shukran shukran Modou Mbaye ñun ñi jàng arab franco arab tamit mi lañ bokk mais ñun benn liggéey rek lañ mën def muy ah. jàngale te ñun dañoo bëgg yëpp nañ ciy boole ñun ci ah. lañ bokk nañ ci boole sa am nga lu métti eh, maa ngi eh, nuyu woote aja wooteel booy sax gala jaa ngi tekkee de. Oh, oh, arab eh. yi la affaire yaa saa waay arab yi. sa lamb déglu ma wax la déglu ma wax la barki Serigne Sallou incha allah dama lay daan yow bu soobee ku teel ki waaw. waaw waaw ah, waaw xaar kii loolu moom force la. waaw yeggalil ñu dem bu wooteel wooteel sama booy nag di ziar sama mbokk booy saraxule yi. waaw di sant waa Minna bu baax a baax. waaw 1 ba 45. Uh-huh. xam nga di sant gars yëpp. waaw ak booy yu ma àndal ay Ibou Omar Sow di la woo waaw Cheikh ba na jàpp si làmb ji yàgg na si jàpp mais bii na si jàpp bu baax di woo Bamba Fall tamit mu jàpp si làmb ji di woo autorité Médina yëpp Gris Bordeaux Mbaye Guèye Faye xam nga Paco Jackson Thiam ñëpp nañ si jàpp jënd Ndiaga Ndiaye yeeg kii Loué Ndiaga Ndiaye yeeg Gris de war na si jàpp jëloon na avance jëloon na avance bu mu bëree xam nga ñëpp na si ñëpp jàpp xam nga woo di woo anti si làmb ji mu jàpp si anti mu ngi siy jàpp anti sax su da siy jàpp déglul ma wax la anti ban France déglul naa nga rek teeyal rek wóor na Serigne Bamba yow da ngay nelaw rek. doo woo Ada Fass. barki Serigne Bamba billaay di waaw waaw xam nga di woo gaa yëpp di woo Ada Fass ak yooyu noonu. xam nga yow lan la bul tiit waay. gël ko woo Zarko woo Zarko. waaw Zarko waaw maa ngi woo Zarko sama tarki daala zar maa ngi koy woo Zarko di woo ci Arna Ndiaye Zarko maa ngi koy woo ci lamb ju baax yow da ngay nelaw rek Zarko maa ngi Zarko la non zar la tarki daala jàmm gën maa ngi woo Zarko da ngay nelaw rek maa ngi woo Zarko billaay xam nga kontaan naa a woo ñu jàpp si lamb na wuy ma xool la fi ñëw du eh, a ama loolu duñ ko teg Omar Sow